war naa mat ay weer ci ginnaaw koo xam ne acteur la ci da koo fekkee mag la mu ne dafa am benn jamono Siri Lamine Niass Babacar Touré Lay Bamba Diallo Mamadou Ban Ndiaye ñu leen doon woy les quatre mousquetaires taxaw ne dañuy def benn marche parce que dañu bëgg a dénoncer le fait que les entreprises de presse euh, à l'époque bu ñu leen taxawul dañuy dee mhm. bi ko Abdou Diouf déggee Abdou Diouf mu ne moom xalaatul di jiite réew ñu naan journaliste yi ña ngay marche mu woo le ministre de la communication de l'époque Moustapha Ka Pape mm-hmm. Pape Sané mm-hmm. ñu ne ko Moustapha Ka ma nga Alger mu woo faamari Ibrahima Sagna def naa mi ngi dund ba léegi mm-hmm. Famara Ibrahima Sagna moom moom moo recevoir ñoom Sidi Lamine Niass Laye Bamba Diallo Mamadou Oumar Ndiaye Babacar Touré bi leen euh, euh, Famara Ibrahima Sagna recevoir daf leen laaj ne leen lan moo xew ba le président Diouf paniqué quoi parce que il n'aime pas ay journalistes di marche ñu ne ko lii ak lii mooy suñu problème femme bi Ibrahima Sall ne leen bu ëllëgee dem leen bu ëllëgee dinaa leen woo ngeen ñëwaat le lendemain bi ñu ñëwee dañoo fekk Pape Ibrahima Sagna convoqué tout tous les directeurs des entreprises nationales du Sénégal ñëw toog ñëwee toog mu wax leen la euh, les patrons de presse ne lan mooy seen problème ñu ne ko am nañ problème courant téléphone ndox yu mel noonu quoi les les charges fixes comme yi nga doon wax Pape. yi mhm. nga xam ne par par par force chaque mois day ñëw mhm. mu wax les les les patrons de d' entreprise nationale yi fa toogoon ne leen ku ci nekk na wax ce qu'il peut faire. Mhm. Air Sénégal ne ñun mën nañ jox journaliste yi ku am carte de presse tu voyages tu payes pas ñii ne lii ñii lii ñii ne lii mu ne ñu ne d' accord c' est bon. Mhm. quand on a ça on n'a pas besoin d' argent Fahmi Ibrahima Sagna ne leen moment bii ngeen toll nii je suis à peu près sûr que vous avez besoin de de liquidité. mooy pour ñëw ci fan la fa aide en fait. Mhm. mu ne leen je vais voir le président Diouf ñu mu dem gis la président Diouf explique ko l'histoire Abdou Diouf ne ko yaa dans le budget de l'État du Sénégal lu ñu tuddee un fonds d'aide à la presse mhm. assemblée da koy woote chaque année boobu la presse ne demande même pas ça hein mais ça existait déjà mhm. Abdou Diouf était étonné du fait que gars yi duñ ko utiliser chaque année dañ koy waat mu ne leen léegi moom mën na ci jël mais moment bi la l'État Abdou Diouf il est comme ça l'État ne peut pas donner parce que le truc jàll na ba pare mhm. ils ont demandé à Ousmane Tanor Dieng mii. Mhm. de de prendre de l'argent des fonds politiques de de, la présidence de la République. Mhm. loolu foofu lañ jël pour jox ko les patrons de presse pour permettre leen ñu suqaliku. loolu moom lañ moom la Abdou Diouf institutionnalisé après mhm. ñu dem ba bi Ablaye Wade nekkee président li aw Diop Ndiaye wax léegi nii. Ablaye Wade moo ko porté je crois à trois cent millions. Oui. c'était une première. Oui. et man dama bokk ci ñi nga xam ne. Ablaye Wade recevoir woon na leen en je pense. ñu toog ak Ablaye Wade ñu wax ko suñu naqar par rapport au fonds d'aide à la presse ci la waxee ne une partie de ce fonds là bu ñu ko jotatee dañ koy réserver à la formation des jeunes journalistes. Mm-hmm. ça n'a jamais été respecté. en tout cas man yëguma ko gars yi ko jógee seen poste lañ koy def donc pour dire que ni ce fonds d'aide à la presse là dafa am dafa am une histoire. Mm-hmm. mais Pape su fekkee ne le ministre de la communication. mi ngi tudd Moussa Bocar Thiam. yow nga ne xamul dara. Mm-hmm. ma xam ne xamul dara. mais ce qu'il peut faire mooy faire du zèle cest dire que Walfadjri gèle le pouvoir comme dit Awa Diop Ndiaye sànq je vais taper tellement fort que bu ko Macky Sall déggee dina kontaan ne sama waa ji li taxoon ma koy def ministre ma nga ca mais là on parle de de de fonds d'aide à la presse euh, ñu tuddee ko aide à la presse généralement mais Pape yow li nga xam mooy le le fonds là quelque part moo gën a transparent mm-hmm. parce que au moins di dégg ñu ne la Pape Mokhtar jot na nangam Pape Sané jot na nangam Aw Diom Ndiaye jot na nangam Moustapha jot na nangam su ngeen ma ëppalee ma génn yéen a ma ëppale te waru leen ma ëppale mais y a grave que ça est-ce que tu yi nekk ci réew mi ak les entreprises nationales du Sénégal mhm. mais dañuy signer ay convention ak des entreprises de presse mhm. ay convention man bërki de Ndiaye wax nañ ba ci benn télé boo xam ne billaahi barke Serigne Touba wal fajjiri mhm. mais signé na benn convention ak benn entreprise nationale boo xam ne 40 millions la koy jox par année Euh, oh, c'est c'est la même structure ne donne que vingt cinq millions à la RTS mais yooyu moo gën a grave fu am na ñoo xam ne euh, le le le directeur général moom mooy seet ne Pape Makhtar Diallo de euh, mooy directeur Walfadjiri mhm. sama booy la léegi wutal leen ko convention cent millions mhm. yow tu vas là-bas ils te font un chèque tu encaisses mhm. mais attends yooyu gën a grave foofu absolument on parle du du fond de la presse gën a moo tax ma ne la le le fond du problème n'est pas de dire Euh, comme l'a di Awa Diom Ndiaye ah man je je soutiens totalement cette idée la que ni Walfadjri la mu doon dunde ba sexub sikkim mën naa koon ni di ko dunde dara du ko jot. Mhm. man man loolu laa gëm. Mhm. Euh, moment bi gënoon na fee metti les Sénégalais dajale lu ëpp lu ëpp cinq soixante millions jox ko Walfadjri muy dund. Mhm. donc pour man ça ce n'est pas un problème du tout. du tout ce n'est pas un problème maintenant ce qu'il ce qu'il faut simplement dire. c'est que le problème elle est structurel. gis nga euh, nga baal ma rek ci guddal bi. non non Nicolas Sarkozy dafa falu. Mhm. en France ñu doon wax ne c'est moom mooy xaritu les patrons de presse en France. Mhm. bi mu faloo mu recevoir leen. mu ne leen je savoir c'est quoi problème. Mhm. mi ngi mel ni rek Macky Sall falu woon enfin Macky Sall du falooti quoi. mais keneen falu woo ñu ñëw toog mu ne ñu je savoir. quel est le problème des entreprises de presse au Sénégal. mais les entreprises de presse en France waxuñu ko subvention la publicité. bi nga xam ne moom mooy jaar sur les médias français. bu ñu xoolul la clé de répartition fran média privé yëppay tëj. Mhm. mais Sarkozy ce qu'il a mooy def ay loi ñu voté ko interdire la publicité sur les médias publics en France au moins à certaines heures. Mhm. cette publicité là yëpp jóge foofu dem ci média privés yi ñu ko tey Sénégal. buñ ne woon la RTS quatre vingt xaw ma quelques pour cent de la publicité du marché publicitaire au Sénégal RTS boobu ñu ne état au Sénégal da koy jox subvention chaque année da koy subventionné mais état mënoon na def lu yomb day éliminer l'aide à la presse ne dootuma ko jox kenn. ba pare ne RTS yow li nga doon am ci publicité dinaa jël ci fonds bi ñu prévoiroon pour aide à la presse jox la ko yokk ko sa subvention yow nga dem toog fële dootoo soxla publicité. au moins à certaines heures léegi li nga xam ne moom mooy la li des ci marché bi ñu ne on va faire une clé de répartition transparente mhm. su fekkee ne Walfadjri moo jiite ci seenu télé Sénégal ñu ne ko tu auras cinquante pour cent du marché mhm. ki ci topp tu auras vingt pour cent mhm. ki ci topp tu auras nangam nangam nangam ba mu jeex loolu mooy transparence la loolu mooy régler problème et malheureusement loolu Pape soo ko dee xaar ci suñu classe politique bii ñu am doo ko gis parce que taluñu ñoom ñoom li ñu tal mooy li Awa jébul kenn man benn yoon laa doon jébul def naa ko pare Pape Sané euh, Moustapha wax na lu am solo te souvent ma ci revenir mi convention yi moom sax mi ngi wax euh, télévision bu existé mais nga nga baal ma Pape y a y a journaux yoo xam ne fii ci réew mi mais ci kii lañ yor mm-hmm. kii lañ dem mm-hmm. nu mu tudd awa pdf yi ñuy partagé ci mm-hmm. groupe whatsapp yi mësoo dox ci marché ba gis ko doo ko gis te dañ di jox convention yooyu est-ce nañ si ñëw ci tënk rek non pas pas Maguette. Mhm. li gën a Pa Pa Maxtaar li mhm. gën a rey presse bi. oui je crois que convention yooyu la. Mhm. parce que convention yooyu bon c'est vrai que c'est légal. mais nag bu bëree ba bëri c'est-à-dire nga gis benn entreprise. tey jii ñu ne la Walfadjri am na vingt vingt convention mooy que maanaam am na vingt secteurs yi nga xam ne Walfadjri du ci du ci waxati. c'est-à-dire quelle que soit l'information quelle que soit l'actualité. wala fa ji doy censuré boppam. ministère bu mu euh, concerné. ministère lu mu def doo ci wax. doo doo ci wax donc tey ji li gën a restreindre di gën a encore euh, euh, soulever le problème de la liberté de la presse bi ñuy wax ni régulièrement mhm. convention yi si la bokk et puis boole ci beneen affaire. oui Moustapha a bien fait de le souligner mooy que convention yi boo ko xoolee. Mhm. amul benn base benn base bi nga xam ne. éthique quoi maanaam ñu ne par exemple le quotidien de Pape la là. Mhm. mu ngi génn à hauteur de trent mille. Euh, exemplaires par jour. am na couverture au niveau national ok kii par exemple dans le domaine de l'élevage ou bien dans le domaine de l'agriculture mun nañu indi lii non non déedéet dañuy xool ni que Pape Matar waaye euh, waayu Moustapha la ok y pas problème on lui fait une convention léegi nag convention bi boo ko xoolee li ci bëri li ci bëri ah. ce n'est pas ministère wala direction bi Moustapha yor mhm. déedéet mais activité politique mhm. Moustapha yi moom la moom la convention bi quasiment di couvrir mhm. Moustapha buy dem tourner euh, fële Louga Louga ñu ànd ci waaw bu bu léegi mu commencé def tournée nag. voilà bu fa ñaari nit taxawee ñu ne noo ñu ne noo 2000 personnes. ñoo fa taxawoon waaye kuy def tournée ba dajeeg doomu sëñ Sambay bi <laughs> donc affaire yooyu la quoi moo tax euh, ces conventions là. bokk nañ ci gën a lu gën a museler presse bi. Mhm. bokk na ci encore également pour euh, pour ne c'est vrai que bu buñ kuñ ci jox nga jël mais dama ne nañ koy joxee dafa dam dem dam ba finalement. dafa détériorer vraiment euh, la qualité de la presse sànq je crois que c'est Moustapha ou Awa Diop mu ngi koy wax mooy ko quotidien yooyu nga xam ne munoo romb kiosque ba gis leen munoo romb kiosque ba gis leen mais chaque jour ñu ngi ci yi ci groupe WhatsApp yi et consort quotidien yooyu bokk na ci ni nga xam ne lii di euh, convention yooyu ils en bénéficient pour ne même pas sans compter la publicité mais Moussa Wade ah surtout ci publicité bi. Mhm. cest à tey dangay xool yenn publicité yi nga xam buy génn xoolal euh, aide à la presse xoolal publicité yi au niveau yaa ngi koy fàttali avec Sarkozy. Mhm. xoolal annuellement annuellement la haute autorité française da koy génnee. oui. Euh, journal bi. oui temps oui. bi temps télé de répartition bi day day leer. day leer nañ aide à la presse bi France euh, ren jii bi mu génnee c'est-à-dire dafa leer nañ. ñu ne la groupe bi temps groupe bi temps groupe bi temps groupe bi mais fii nii munoo fexe bañ la publier ne la bon voilà grille baa ngi nii Walfadjri lii la am euh, tel autre organe lii la am cest di dire res reste ça entre les mais de ministre ça reste entre un petit cercle restreint bi nga xam ne ñoom ñooy décider la war a jox nit ñi ndax la ñu warul jox nit ñi mm-hmm. aw mm-hmm. oh, Diop euh, sa beneen naataango di jigéen Oumy Ndour euh, mi ngi xamal euh, la dernière fois que ni voilà moom aussi am na jafe-jafe ci wàllum convention boobu parce que convention bu benn entreprise bu sax benn télévision signé ak waa Senelec moo tere moom mu amal benn émission boo xamante ni da ko bëggoon amal pour dénoncer boobu la Senelec est-ce du convention yooyu dañuy ñëw di gën a tudd sax di gën a voilà. néewal doole tere voilà di leen néewal doole mais aussi. di noot

da nga koy comprendre mais bu boobaat également dañuy wàcc li nga xamante ne mooy charte journalisme ak entreprise de presse moo di naan service public askan wi nga war a liggéeyal donner la bonne information à ton peuple bu fekkee ne nag tey jii bu euh, dañuy euh, nu mu tuddati euh, dañuy comment on di retenir l'information y a un autre terme. rétention rétention bu fekkee ne tey loolu dafa am. censure censure voilà bu fekkee ne loolu dafa am am na lenn loo xamante ne entreprise de presse wàcc na ko mais tey loolu moom mooy wane ne plateforme bi ñuy teg paysage médiatique bi ñu yore tey jii Pamatar ñun ci dund rek la ñu mën a nekk xam nga toog nañ fii ne Amadou Ba candidat de la presse lan moo ko ko may foo sama duun muy dugal loxo ci poste di jox entreprise yooyu du fa dégg lu ko lu li ko neex. parce que entreprise yooyu dañu leen asphyxier mënuñu dund sans pour autant xaalis ndax tey jii ñiy jaay journaux ñoo la gën a xam ne tey journaux jaratul. Hmm. feuille cher na cher boo xamante ne euh, tey euh, euh, imprimerie yi fi imprimer léegi di génn dañoo bëreetul. am na benn jamono sax am na benn quotidien bu siw bon pas siw mais que ko moom xaw na siw tuuti euh, biir soleil euh, ci boppam si nañ doon tiré li nga xamante ni mooy quotidien boobu ba il a fallu que ñoom syndicalistes yu nekk waa travailleurs kaas ko euh, pour ñu arrêté ko c'est pour te dire xam nga journaux yi jaratuñu kenn mënatu ko jaay de ce fait tey jii su ab Pape ñëwee tey jii yor ay milliards am chaque jour bëgg ñu tudd ko su demee bu fekkee ne journaliste boobu amul éthique amul déontologie amawul boolewul am ak ñàkk ne damay liggéey ba lu ma ci am rek mu doy lu ma pamatar kooku day jël xaalis bi ne ko du ŋaañ di la taggale say maam tey jii dañ naan euh, ay kii communicateur traditionnel mais yaakaar naa ne tey jii y' a beaucoup de journalistes yoo xamante ne tey ji ñoom ñoo retourné wu nekk ay communicateur communicateur yee leen gën de traditionnel moderne communicateur yee leen gën parce que communicateur dañ koy assumer waaw moderne moo tax ma ne la communicateur traditionnel moderne parce que nit ki ñëw jox la xaalisam nga koy wayal say baax baax fàtte na yow tu as fait combien d'années ba def sa master soutenir sa mémoire ak ñoo ñëpp xamoo leen woon fu ñu féetee fayaluñ la sa jàng mhm. ba nga ñëw yor say lijaa sa toog mu ñëw fay naan la taggal ma samay maam nel maa fi def maa fi wax mhm. Mhm. xam nga loolu Pape Pape Makhtar euh, dama yaakaar ne lii Awa Diop wax nii li lenn moon ci yóbbu mooy bu njëkk euh, euh,